xamante ni pour yoonu murid la yaakaar naa ni jàkka ak néegu yàlla fépp foo xamante ni taxawal nañ ko fa jullit yàlla yëpp rek ñoo tax waaye nag suñ ko indee nag ba nga xamante ni mooy fii nga xamante ni moom mooy poroxaan sore dëkk yu mag yi nga xamante ni moom mooy tax daanaka sës ci bi nga xamante ni moom mooy frontière Gambie bi nga xamante ni daanaka mën naa wax ni Gambie la gën a jege sax ci Sénégal yaakaar naa ne mu def fi liggéey bu ni toll yaakaar a magnifier la lu luñ ko war a sargalee la luñ ko war a ñaanalee la suñu borom kattanal ko suñu borom wéral ko suñu borom dëgëral ko ba li mu yéene mu nii mu ko defee Porokhane def ko ci Ndakaar mu def ko ci mbooleem gox yi nekk ci senegal yëpp ndax xam naa ni loolu mooy euh, mooy mooy yéeneem. Euh, jërëjëf sëñ Djibli ni nga ko waxee am na solo lool mu mel ni leeral nga ko muy continuité boo xam ne am na ci yoonu murit des fois dañ naan l'état c'est waaye te ñu gis ne yoonu murid continuité la da ngay ñëw fa say kilifa yemoon nga ñëw wéyal liggéey bi ndax ni nga ko waxee sànq rek Serigne Moustapha Bassirou ci jamono liggéey na fi jumaa joo xam ne méngoo woon naag jamono jooju ci gox bi raaroon na fi lool waaye it Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir bi mu ñëwee gis ne war nañ koo yeesalaat indaat loo xam ne méngoon naag jamono daf koo def kon ñu xam ne yoonu murid continuité la tey jëf gi day jiitu wax ji saa su ndax ñu bëree bëri ku ne xam ne ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir liggéey bi ñu koy def woote wu ko ndax deful déclaration ñëw ne an ñëw leen ñu dem liggéey liggéey bi da cee sóobu murid yi ñëw fekk ko ci kon loolu exemple la boo xam ne saa su ne murid yi war nañ ciy roy muy continuité boo xam ne day am ci kilifa yi waaye sóobu gi ñuy soobu ci liggéey ñëw euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi mën a ñëw ànd ak ñoom euh, liggéey xam nga loolu rek sëriñ bi naka jekk moom euh, la théorie par l'exemple lay joxe saa su nekk boo fàttalikoo euh, fan yee ci ginnaaw bi nga xamante ni. Euh, gone yi fipp nañ ci Touba dana leen xool leen ci man ki nga xamante ne nag moo lay joxoñ boppam naan la xoolal ci man da lay wax ni man mii kat référence la tey référence bi nag toogul ba ndëgë ni doog koo wax ndax bi nga xamante ni ci wàllu taalibe ay magam nekk fi ay baayam nekk fi kilifaam yi kenn ku nekk wan na la ànd naag yow liggéeyal la ba nga gërëm ko bu ñu demee ba nga xamante ni sax njabootuk Serigne Touba yi wëlbati ko di ko tuddee doom xamante ne ay doomi Serigne Touba lañ nawloo ko ba di ko tuddee doom rawatina ñu jël seen yë mbiri biir di ko ko jox ñu ci bëri ñu wàcc liggéey mu taxawu leen kon loolu dafay wane fi nga xamante ni fa la nekkoon waaye nag loolu lépp nag ci taalibe rek la ko tegoon ak bëgg sëñ Tuubaa yaakaar naa ne murit yëpp ku ku fi taxaw moom bu taxawee yëkkati loxoom mën naa wax ni murit yëpp kenn ëppuma ci taalibe mën naa wax ni kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn gënuma cee bëgg sëñ Tuubaa ndax saa boo déggee muy wax sëriñ Tuubaa da ngay dégg tënnam ba di yëngoo di bëmb exemple yi nga xamante ne tey jii noonu la doonul xaarut ba doon Serigne Touba doon ko dem bërki Dembo Ndiaye bi ñu commencé ci li nga xamante ni moom mooy Covid bi ak mesure barrière yi gis nga bi nga xamante ni génn na dafa maskam noonu gis nga tey jii ñi nga xamante ni noonu la mbooloo mel ñëpp kenn ku nekk yaa ngi takk sa masque ñëw toog respecté ko loolu la ñuy wax théorie par exemple mooy lan mooy kilifa bu jiitoo mbooloo day koy def ñu gis te du ci boole wax sëñ Muntaxa noonu rek lay noonu lay doxee noonu lay liggéeyee tey it yàlla muy suñu fierté mat si ñun nag taalibe mat si ñun royuwaay mat si lépp amul dara loo xamante ne dinañ ko xool feneen wala ñu koy wut feneen saa bu ñu xoolee suñ Muntaxa ci wàllu taalibe daf ñuy doy sëkk suñ ko xoolee ci wàllu njaamu yàlla dañuy doy sëkk suñ ko xoolee ci wàllu murit ak pas-pasam dañuy doy sëkk suñ ko xoolee ci wàllu jëf ci lislaam wala joxe sa alal ci yoonu yàlla da koy bu ñu fàtte ni addiye ju mag ji nga xamante ne moom la El Hadji Mahamadou Lamine Bara njëkk a yëkkati ci loxom moo ko jël yëkkati ko muy ay millions yu bëri mu jël ko teg ko ci loxom tabax jumaa ju rëy ñëw laat ko doog a def li euh, seen gala macha allah sëriñ loolu am na solo ni ko waxee rek euh, ñoom ay kilifa lañ dañuy topp seen i kilifa ànd ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne ci lañ nekk ndax liñ naan ku dul toppe kenn du la topp te it su ne seen i jëf lépp lu ñu def rek jàngale lay doon boo xam ne taalibe bu murit bu nekk war na cee mën a jàng muy lan muy fonk kilifa ànd ak ñoom ci li nga xam ne ci lañ nekk ba keroog ñu lay gërëm ndax ngërëmal yàlla dafa am solo rawatina ngërëmal Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ni ko waxee mu nekk koo xam ne euh, jàngoro ji bi mu taxawee gis nga li mu yëkkati ci koppar laata état bu Sénégal di lancer appel pour ñi nga xam ne ñoo di citoyen ñu contribuer moom def na lu nu mel pour wane l'exemple donc wane fo wane na foofu exemple biñ demee ba soxla ndimbal ci réew mi yëkkati na vivre bu bëree bëri tàmbale koo séddale kon kooku wane na exemple biñ demee ba ne port masque obligatoire dafa sol masque comme ñëpp kon wane na exemple ba ci gel alcogel yi ñuy laal sax gis nga sëriñ bi image yi saa su ne bu ñëw ci jumaay Tuubaa ji bala mu fa dugg de tàllal loxoom ñu defal ko ci alcogel kon kooku yaakaar naa dundam buy jàngale mi ngi jàngale tamit ci doxalin àddina ci ànd ak suñu borom waaye it ànd ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci àddina te am xam-xam ci fànn goo xamante ne ni moom mooy dox muy par exemple wàllu kër docteur mu nangul leen loolu ànd ceeg ñoom loolu dafa nekk loo xam ne lu solo la. waaye it événement bi tey nekk na événement boo xamante ni ñu bëri ñu ngi ci doon wax ak jàngoro bi ci am waaye it ay mesures ku ne xam ne ne sëñ bi woote wu ko woote wu ko taalibe yi ñoo am seenu xër ba sëriñ bi moom fu mu nekk fu nañu fekk ko fa taalibe ñoo am seenu bëgg sëriñ bi ba lépp loo xam ne soobu ànd ceeg moom loolu moo tax taalibe yi bàyyi ko fu ne ñëw teew waaye teewul ci biir ñu ngi koy gis ci image yi ñi nga xam ne ñoo di waa Muxaddamatul Xidma mi yor organisation jumaa Tuubaa ji jël nañu ay matuwaay nga xam ne distanciation sociale bi ñuy wax dañ ko respecté ci biir nga xam ne sàppe yi jegewuñ dafa am noo xam ne noonu lañ ko tërale kon euh, sëñ Jibril foofu ñu mën cee jàngee ne yoonu murit nekk na yoon woo xamante ni ñoom dañuy jëfee seen digalu kilifa waaye dañuy ànd li nga xam ne moom la réew mi dogal ñu war a nekk ay citoyen exemple. waaw xam nga euh, gis nga mbooloo mu nekk organisation da leen di euh, dugg seen biir pour nga mën a xam ñu bëre dañuy toog murid yi lii murid yi laa murid yi la alors que dugguñu ci biir li nga xamante ni moom mooy organisation bi dugguñu ci ci li biir li nga xamante ni moom mooy communauté bi léegi-léegi sax am ci ñoo xamante ni mën nañoo wuyoo ni ay murit lañ te fekk ni dunduñu dëgg-dëgg li nga xamante ni moom mooy mouridisme wala wala wala wala wala dëgg-dëgg yi jukko yi kon euh, yoonu murit depuis création depuis Serigne Touba taxawal ko dafa mës di joxe ay exemple ci lépp nag ci patriotisme Serigne Touba ba ñu demee ba yëf yi metti ñuy daaneel franc bi dafa yëkkati xaalisam def ci ba ñu demee ba war a participer à l'effort de guerre dafa jël ay mbooloo ay soldats joxe am ci ñoo xamante ne da leen a taxaw jullee leen ñaanal leen laataa ñoo dem kon kooku naka jekk luy participer ba ñu demee ba bañ a lànk bañ a fay lempo it suñ mënul saa dafa taxaw woote ni leen dee leen ko fay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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة